mankuno gorgo gorko a yariki a wona gorko leke leɗe kili lekki ko lekki gorko woni kili lekki ko lekki gorko woni kili lekki si a soodi man il faut ko ni ñamirta am ne kon nag mbokk yi daw leen gaaw ngeen wëri eh, yëg tawféex ndax nee naa la kat yow moom nga xamante ni yaa di góor eh, di gaaw a yëg sa bopp wala yow moom nga xamante ni yaa di góor di gaaw a daanu wala góor yi nga xamante ni sax eh, seen i dafa gàtt wala góor yi nga xamante ni seen i awra dafa tuuti wala góor yi nga xamante ni saa su nekk rek suñuy def rapport dañuy dem 2 minutes daal di bàyyi wala ñu dem 3 minutes daal di bàyyi waaye jàpp ni yëg tawféex jëlee na fi minutes yooyu yëpp indil la 25 minutes kon nag mbokk yi gaaw leen gaaw ngeen wut si yëg tawféex ndax faj seen aajo ay ca ku ci bëgg jot da ngay daal di def 77 193 13 78 77 193 13 78 mbokk yi coonaak njàkkay dafay jeex ci réew bu Sénégal. jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur u Sénégal Média TV ñu leen di nuyu di am mbégte ak contentement di dellu si waat ak yéen di jàkkaarloo waat ak yéen ci actualité làmb balaa dara ma leen di daal di nuyu di leen bégee di nuyu grand bi nga xamante ne ni moom moo ñu dalal moom lañ fekk si fii muy grand Lamine grand Lamine maa lay nuyu di la ziar di bu baax a baax a baax rawatina nag yéen ñi nga xamante ne ni yéenay seetaan Sénégal Média TV fépp fu waay mun di nekk rek Bilenti Djiné fekk na ne la jàpp loxo tey nan mbokk yi maa ngi fi nga xamante ne ni moom muy géej waaw ba seet si ndaanaan seet si ponkal seet si koo xamante ne ni heure bu waxee làmb yëngu seet koo xamante ne ni ci làmb la bokk muy waaye nag dama koy daal di bàyyi mu nuyoo waxtaan ak yéen présenté boppam mbër maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di lay fay auzu billah bismillah inna wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jaaraama Seera Fall ah ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent suma ñaari waajur di sant suma Serigne Serigne Ousseynou Mbacke mu Serigne Atia sant grand fii nga ma fekk ñu grand Lamine parking bu mag la yor macha allah xel comme automobile Kendrick Berthie bi di grand bu baax grand bu ñàkki ñaan yàgg a sonn ci bébé Elton di ko jàppale waaw bari na fépp dem moom mooy taal oto mu yóbbu wala mu jox ma oto kon grand bi ku bëgg oto bu baax ñëwal ci grand Lamine en face Berthie bi di grand bu baax oto boo bëgg am na fi façon oto bu oto jinne da koy jaay macha allah di nuyu waa Géejawaay gi ma juddoo waaw maa leen di nuyu bu baax di leen gërëm di nuyu waa Lac Rose waa Tivaouane Peulh waa ñàkkurab Kër Massar Bayax ah waa sama sama supporter euh, ki waa France New York xam nga États-Unis macha allah gars yi bébé Elton gars yi dañ koy consommé local si sama fan si yëpp maa leen di nuyu mm-hmm. waa trois cent treize mm-hmm. réew yëpp maa leen di siyaar di leen gërëm mm-hmm. trois cent trois cent treize réew yi yëpp maa leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen wax bébé Elton ak bébé Elton nee na waa 313 réew bi yëpp mu ngi leen di nuyu di leen ziar loolu ay waxu bébé Elton la waaye nag mbokk yi laataa may tàmbali waxtaan bi damay bëggee grand Lamine ko bëggee waat sax laay wax ndax grand Lamine jàpp na ci bébé Elton te grand Lamine tamit bokk na tamit biir géejawaay moom it dama koy daal di bàyyi mu nuyoo waxtaan ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy téléspectateur u Sénégal Média grand Lamine nuyu naa. Euh, maa ngi leen di ziare di nuyu waa ak lu làmb yëpp di leen siyaar di leen bëggee waaw xanaa di leen wax ne bébé Elton euh, suñu rakk la suñu mbër la suñu lépp la te vraiment it euh, bébé Elton euh, dafa nekk xale bi nga xamante ne dafa neex a jàppale xam nga nit ki mënoo ko wax ci moom xamoo ko li tax may wax ci moom nag mooy dama koo xam parce bébé Elton dama koo yar ñu yàgg ànd ak ni muy gis ni ñu yàgg ànd ci quatre heures du matin cinq heures du matin six heures du matin nañ ko jiñ kon xam naa bébé Elton mooy kan xanaa di ko ñaanal rek gudd fan ak wër ak yokkute yéen tamit aussi di leen ñaanal waaw di ko ñaanal nag ci làmb ji ñu yàlla may ko ci ndam lu sedd guy incha allah yàlla dina ko ko te ci mbokk yi yàlla dina ko ko may loolu ay waxu grand Lamine la ak ay ñaanam waaye nag maa ngi fi ni toog ba léegi mbokk yi fas yéene waxtaane actualité làmm laataa loolu balaa may daal di tàmbali damay félicité ki nga xamante ne ni moom mooy jamaïcain naan ko heure ménage série bébé fa moom barki de moo njaay la jël foofu noonu soxna sa géejawaay yàlla na sëy bi barkeel nga bokk ci axlu làmb ñëpp teewaloon la loolu lu rafet la yàlla na la yàlla gunge yàlla yàlla jàppale ñu am ab ceetlu ñu am ab ceetlu boo xamante ne ni def nañ ko coow li bëri woon lool wax yi tamit bëri woon lool ci diggante Sa ak Balla Gaye ñu gis ne Sa teew na ci ngénteel Balla Gaye 2 Aziz Aziz Ndiaye ñu daal di koy tuddee doom ji loolu mel na ni coow lu jeex na coow lu jeex na ci diggante Balla Gaye 2 ak Sa Thiès waaw onze billah bismillah inna waliyallah waaw bala may wax ci loolu rek damay wax fépp supporter bébé Elton nekk ah maa lay sant bu baax di gërëm waaw loolu lu rafet la ñu ngi koy rafet mhm. ñu ngi koy rafetlu trop macha allah ñu ngi koy rafetlu foofu ñu ngi koy rafetlu foofu rek nga si mun a yem en tant que ngay bébé Elton bokk géejawaay Balla Gaye 2 bokk géejawaay du Aziz Aly Ndiaye bokk géejawaay gisuñu la sax ci xew bi nga ni foofu nga yem. té amna lo xamné ñu ne mako wax mbeur ndax damay bañ jël ku gaay né nañ Bébé Elton <laughs> bo ñëwoon ci xew bobu non di nga jël ku dina melni bu ngor jaay mbam ma nopp yow dem. non man dama am sama bis di préparer combat. Hmm. adduna yaakaar hmm. nit ku ne. Hmm. fi ngay dem ya fa yobbu sa bop man dama gëm sama bop xama jaar fa metti jël sama yoonu bop ba dégg daal tay ci lamb ku nekk bëgg wax Bébé Elton wala ku nekk bëgg and ak Bébé Elton kon loolu duma ko yaa Mm. suma fans yi ñoo tax may sonn jëm mm. naa ci bis le vingt quatre novembre di ci woo ñëpp mm. bis boobu daf maa ñor amatuma droit dem fenn ñëpp nag laa seexal jàmm mm-hmm. waa mais amatuma droit dem fenn mm-hmm. lu dul sama combat passé ma am ci ndam mm-hmm. ci kàttan yàlla di nuyu sama idole sama doomu ndey muy Modou Lo di ko ñaanal ndam ci combat bi mu jëm parce que koo xamul nu mu lay def nam la defa tax mm-hmm. moo ma def li tax ma def ko ni ma ko def mm-hmm. lay ma mm-hmm. waaw maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal ndam ci kàttanu yàlla te incha allah dina ko am ay ca mbokk yi xaayaan ku déggul séeréer loolu lay daal di àbb ki nga xamante ne nii moom mooy euh, Leuz lamb lambaloog xaayaan ku déggul séeréer laa lay àbb ci wax jooju noonu bébé Elton daal di wax bébé Elton ngay préparer sa komba nga jëm si le vingt quatre novembre incha allah Mansour Ba organiser loolu taxawal ko ñu gis tamit mu boole ci Amath Dia ak nët mu boole la ci yow ak Cheikh Niang muy ñaari combat demi-finale ku daan da ngay dajeeg sa morom finale ni ñu bëggoon nga indi ñu loolu ay leeral ba xam ndax le même jour la wala. ah maay profité di sant PDG Mansour Ba. Mm-hmm. barke Serigne Touba nekk nit ku baax. Mm-hmm. ku ne xam na ne léegi man maay mbëru jàmbaar. Mm-hmm. man maay mbëru ci mbëru Mansour Ba mm-hmm. di sant Mansour Ba bu baax mm-hmm. fu ma ko romb fu ma taseeg moom mu defal ma teraan mm-hmm. te bu ko neexoon na tëggal naa bébé Elton fay naa ko li ma ko a fay jeex mais nit ku baax la père ba maa ngi koy sant mooy suma baay léegi père ba moom laa bàyyi la sama pa sama ba moo ma jur ci gaño gi bu Mansour Ba exclusivité bu bees tàq laa lay tegal père ba mooy sama papa Mansour ba PDG mooy sama mag. Mm-hmm. assurance borom jàmbaar mooy sama mag. Mm-hmm. léegi man maay mbëru jàmbaar. Mm-hmm. waa di ko ñaanal PDG Mansour ba di ko ñaanal bis bi yàlla ci am réussite. te gëm naa ne dina ci am réussite total. ndax maanaam ku yokkul da ngaa waaj. promoteur yëpp bu ñu meloon ni Mansour ba. kon Sénégal dina avancer. parce que nit ki fu nga dëkk da nga leen di amal njariñ. mais amal na njariñ waa parcelle. Mhm. barke Serigne Saliou Mbacke muy meer xale mag mhm. foo romb ñun naa Mansour Ba lu baax li mu def mhm. kon kooku gàcce nga du ma taay di ko wax lépp lu bëgg moo ko xam yàlla ko yàlla defal man bébé Elton ci kotom laa far sama combat nag maa waat maa ngi ci entraînement yu métti di profité di sant waa école de line Ndiaga Sarr di sant euh, coach Elas mu métti entraînement yu métti macha allah Cheikh dama ko ñaanal jàmm mm-hmm. mais incha allah nu mu def day daal mm-hmm. dinaa ko dóor ba mu dee ma wàq ba mu xóot mm-hmm. neuf mètres ci suuf woo grand Lamine par muy jaay oto mu julleel ma ko ba pare ma suul mais foofu la ma sénégalais yi di xaar ndax damaa am sama gëm-gëm ak sama objectif ci làmb man maa fi bëgg a def lu kenn deful dóor fi mbër ba mu dee wàq ba mu xóot douze mètres profondeur woo grand Lamine wala Modou Lo mm. sunu waa dèjà mu julleel ma ba pare mm-hmm. ma suul taril ko fukki borom bi ñaw mm-hmm. na dina fi suul ay mbër man géej raja tàcc géej géej jagi jagi rus mbëru Grand Lamine na dina ay mbër géej jab raja tàcc na mbëru Grand Lamine na la la la la la Elton ñëw na Elton ñëw mais foofu la a sénégalais yi di xaar. foofu nga toll waaw. barki yonent bi man ñëpp ma bëgg. Mhm. aw ma droit di def erreur. Mhm. aw ma droit juum ci mal euh, communication. Mhm. parce que ku ñëpp bëgg. waaw dafa am nooy toogee am nooy wax. maa ngi sant képp kuy bëggee bébé Elton. waaw waaw waaw waaw. téléspectateur u Sénégal Média di am question bu ñuy laaj mooy loolu ma la laaj. ñaari combat demi-finale yi. finale bi le jour J la wala la. no Mansour Ba moom pour pour l'instant moom mooy làmb mm-hmm. Mansour Ba moom mooy làmb mm-hmm. parce que Serigne Saliou Mbacké ay innovation yeneen ñu biir làmb mm-hmm. yeneen damay bañ a wax rek innovation yeneen ñu ci biir la baa xam nga ni Modou Lo xam nga ni bu bu yàlla dogaloon tey Modou daan Siteu ci biir euh, làmb ji lanu laay bëre maag Siteu nga bu bees sàq laa lay tegal damay daan damay daan dogaloon ñëwaatal bu yàlla dogaloon seex ñang bu yàlla dogaloon Modou Lô daan Siteu mhm. ci biir jëw bi la ñuy bëree bu bees sax jël naa avance am tey naaw lu bees sax laa lay teg Mansour Ba mooy làmb mhm. ku yokkul da ngaa waaj waa mhm. xam nga ni combat yi ci nekk yëpp ku ci am nga ku bëre ci daan lolu ci bis bi manam ben journée le tegg mu def ko ñaari journée ci bis mhm. ku yokkul da mhm. nga waan lolu menn masour Ba moko ko ko def TDG bu bes ci kenn du moom mhm. kon ku ñëw bisu làmb ja wala ku dagg sa bi wala ku jënd code do ko rek mais mais ana lan mo waral nga bayele sa bop père masour Ba père Ba père père Ba père Ba di moins ba pare nga ni masour Ba yow yaay mbeureum yaay mbeuru jambar lan moy sen relation yeen waaw père Ba dafa nek nit ku baax Mm-hmm. yàgg a jàppale waxuma la mbëru mm-hmm. euh, mbëru parcelle mais yàgg na jàppale mbëru géejawaay wala mbëru parcelle mm-hmm. moom macha allah koñam duñ dëkk père ba parcelle waa parcelle ko njëkk a gërëm barki Serigne Saliou Mbacké kon balaa koy doomu géejawaay di gërëm waa parcelle la ko njëkk a gërëm macha allah nit ki fi nga nekk da nga fay amal nit ñi njariñ boo bëggee nit ñi jàpp la fonk la mais père ba gàcce sant nan la gërëm nan la Modou Mhm. sama idol sama boo demee yoof mhm. barke Serigne Saliou Mbacke kenn jooyul dara mënuloo mi ngi ci dëj yi foofu mhm. mi ngi ci mi ngi ci ceet yi ku xew dara boo déplacé woo yëgal ko ko mu def enveloppe bu baax jàppaleel noonu la mbër di mel ci kanam moo tax ku tudd mënuloo da gis gars yi mel ni ku lay lekk parce que daf leen amal njariñ loolu dafa baax nit bu la yàlla dénkee alal da ngay partage di sant PDG Mansour Ba xaw ma fayam parce barke yàlla xamal laa ko tuddee. Hmm. rapide transfert. nga ni barke Serigne Sall moo gën a gaaw Wave moo gën a gaaw Orange Money. a gaaw moo gën a gaaw meles. ndeysaan Mansour Ba bis ni que naa ko meles. meles meles menteng yaay meles menteng. mais mais mais ñu gis ne tamit parcelle lim am. Hmm. géejewaay yor na lu mel noonu. géejewaay am na lu mel noonu. tey jii nii nee nañ kuy wàllu yaan rek sa dëkk neexut. wala fi fi nga fi nga bokk moo tëggul. Ah. te yow fi nga bokk moo ngi tëgg. lan la lan mooy problème man man man ku rusu ta a jàppale rusuma ànd ak yow mm-hmm. man dama derek mm-hmm. man bima ja tafu tafuma ci kenn tafuma ci benn mbeur bu ndaw wala benn mbeur bu mak fuma ma fi yobbu sama bok mm-hmm. kuma ma mën a jàppale ta yàlla tax nga jappale ma ma and ak yow jappale woo ma du la ngagne dina la baye la nga am gëm li ma gëm ba yexi fuma yex ma parce que fii bi nekk États-Unis senegal ngot euh, euh, Sénégal gosuróon ma lay PDG yaa wóor su roon yaa wóor sama xarit bi gis nga grand roon di nit ku yàlla baaxal waa man man nii laa mel damaa direct ku ma jàppale dëkkal Mali wala Kédougou ma ànd ak yow boo ma rusut jàppale rusuma ànd ak yow géejowaa nag fi laa dëkk am na ay nit ñu baax ñu fi ne ku mel ni grand Lamine waaw nit ku yàlla baaxal la xaaruma ci dara su ma rombee barke Serigne Touba day jël démam daxaaram jox ma kon kii dafa jara gërëm mm-hmm. di gërëm waa parking bi yëpp na mm-hmm. di wax képp ku bëgg oto bu bees wala oto bu baax mm-hmm. doxantul ba ci en face euh, euh, kii BRT bi nga ñëw ci Grand Lamine mu jaay la oto te bu xéwale la la di sant Grand Mass transporteur ceeb fii ay ay nit ñu baaxatin ku ci mel ni Grand Mass waaw waaw waaw ku ci ni grand grand waaw grand Njaay mm-hmm. di doomu nday grand Lamine mm-hmm. ku ci mel ni moom amul awma fayam mm-hmm. ñii may jàppale waaw macha allah dañ may jàppale bu baax ku mel ni grand Mass Seck transporteur ceeb seetaanul mm-hmm. bébé Elton bu benn yoon mm-hmm. barki yoon tim daf may jàppale mm-hmm. waaw di sant euh, Tamsir Soxna Lat Diop maa ngi koy ñaanal PDG fi mu nekk noonu yà génn foofu parce que foofu du palaasam grand nit ku baax la Lat Diop nit ku am valeur lépp lu am mi ngi koy bokk ak kon kooku ñu ngi koy ñaanal foofu mu nekk yàlla na fa génn jàmm ci kàttan yàlla ay ca yàlla fa génn jàmm ci kàttanu yàlla yàlla ko yàlla dellusi waatal ci ay njabootam ndax moom grand la Diop nit ku baax la te gis nañ li muy def tamit ci géejawaay xayaan ku déggul séeréer ba léegi loolu laay daal di continuer di ko abat nga xamante ne nii moom mooy làmbaloog Elton wax na la Elton nag li mu wax boo déggee ma utiliser xayaan ku déggul séeréer mooy maanaam koo ko jàpp la jàpp koo ko jàppul jàpp la coow li am si diggantee moom ak waaw ki fi ne di di ponkal coow li am si diggante keneen ki fi nekk tamit di ndaanaan di ponkal ma dal di fay ñëwaat ñu dem ci leneen Bébé Elton jambar organiser lu graw lu doy war mu melni jour bobu nonu mën nañu japp ni Bébé Elton ndam moko war té ndam moko ndah ñor ndax limu mu wax daal dinay jël bopam bàyyi la ko Père Mansour Ba beneen bi si topp fan yi ñu gis ne da nga rar fani yëpp ñu seetlu ne da nga wañi wax gi yaangi liggéey bu baax a baax baax pour wajal bis bobu non ndax dégg na la ci say wax nga ni dangaa bëgg a indi beneen bébé Elton dangaa bëgg doon beneen bébé Elton pourquoi seen motivation lu nga di waaw mais parce que boo waxee ba sénégalais yëpp bëgg mm-hmm. li des mooy jëf mm-hmm. dangaa war a nëbbatu mm-hmm. liggéey te xam naa li ma war xam naa combat combat bi dafa am lu ci laxas sa combat. waaw wii dafa am lu ci laxasu. barke Serigne Saliou Mbacke. ñamal man doomu góor laa. Mhm. incha allah ci kàttanu yàlla Cheikh Niang dinaa ko duma dinaa ko daan barke Serigne Fall. ñamal ma jàppale Cheikh Niang. Mhm. jàppal ni bu ma bëree Cheikh Niang ba mhm. pare dinaa bëri yow te dinaa la suul ci peel. gars yi dañoo ak Cheikh Niang dem ci ay mara wala di ko jox xaalis. pour soxla bopp daan loolu kay biti la fanaan. ma ngay nelaw. barke Serigne Saliou Mbacke. mais dama la bëgg a xamal ni fii yàlla moo fi ne yàlla moo fi ne ku mën a yàqal nit defar sa bopp hmm. waaw man li ma wax làmbatoo moo man damaa gëm sama bop ba yegg sa fii hmm. gis nga yàlla bu ne damay daal hmm. boo jëloon ñetti milliards jàppale nit kooku damay daal bu ne yàlla bu nee damay ñàkk soo ma joxoon sept milliards dan may daal mais incha allah ci kattanu yàlla novembre ndam laa képp nekk ci ginnaaw Cheikh Niang di ko jàppale barke Seydina Mohamed bu albi soufflé dinaa ko duma dinaa ko daan dinaa wàq ba mu xóot suul ko ba pare woo leen ngeen ñëw ma suul leen ci deel parce que man maa ëpp ay adversaire ci làmb man cour des grands Modou Lo rek laa dul bëreel ci cour des grands ñëpp laay bëreel ku dul Modou Lo damay bëre ak yow te dinaa la suul ci peel bi lii mooy sama objectif dóor la ba nga dee dinaa fi dóor mbër mu mag ba mu dee na wàq ba mu xóon neuf mètres ci suuf masuul barke Serigne Saliou Mbacke di sant taaw bu baax taaw mbay daf may jàppale mais lii dafa dafa xëy mais mbër mais mbër yaa ngi lay gàññ mbër yaa ngi lii weesu na woo lii moo romb békooti way mbër lu woo kong laa lay tegal ci table pour de waa cour des grands ñoo am su ma daanee seen ñan ba waxee uh-huh. di mètres profondeur uh-huh. suul ko ci buye uh-huh. ah woo grand Lamine mu jullool ma ko ba pare ma suul talil ko fukki borom peel bi ñëw na dina fi suul ay mbër waa cour des grands ñoo am problème ñooñu moom bu ma ci dóor ba nga dee treize profondeur laay gas treize mètres profondeur te bu ma lay suul dama lay bës waa cour des grands fukki borom pel bi ñew ne dina fi sul ay mbeur mba faté woni Cheikh ñang doomu mbeur la mba faté woni mag la ci ki nga xamantene ni mom moy Boy ñu dégg ne nga ni duñ ko door mu dé wala comme li nga wax rek di nga gas bom xoot dal di ko siy duggal fan nga tek lolu mais mon Lo moy roi des arènes est tellement mi lolu kenn waxatu amul bay mbeur amul rak mbeur amul papa mbeur amul. waaw mm-hmm. man ci tank mo Lo la jaar ba yegg bëgg mm-hmm. te Modou Lo dina bëre ba bàyyi bëre yóbbaale roi des arènes mm. daf may woo ni ma bébé Elton ñëwal ma jox la roi des arènes mm. waaw oh. petit petit petit roi des mm-hmm. bu bëree bay bàyyi bëre man lay danaa ma e bébé Elton kaay ma ñëw mm-hmm. mu ñu ma am courant baa ngi mm-hmm. ma xool cour des grands ñu bëgg a no am na ñoo xam ne ay nerf sciatique lañ amee. Mm-hmm. ñooñu dama leen a war a dóor ñu faatu ci làmb am na ñoo xam ne ay tànk la ñuy mm-hmm. dama leen a war a dóor ci làmb ji ban dee ñu génn làmb am na ñoo xam ne ay ndigg yuy metti ay oom la ñuy la ñuy man maa xam dinaa fi dóor mbër mu dee ma wàqe ba mu xóot douze mètres ma suul lii fii la ma réew mi di xaar barke yàlla. litak litak litak nan nga ne di nga dóor mbër mu dee maa ngi koy doog a xam baax maa ngi koy doog comprendre mais ba léegi rek ma daal ma daal di ñëw ci yow sa adversaire am lu ma yóbbante mu am ay wax yu mu wax mu ne ma Belende ma ne ko naa mu ne ma boo demee neel Bébé Elton Beuz da ko waroon a nommer meilleur comédien de l'arène ndax dafa comique man àdduna ñëpp ma bëgg li wax nekk térisew ma mm-hmm. lii dafa nekk ci man mm-hmm. parce que doomu géwal laa mm-hmm. sama papa séeréer la sama yaay géwal kon damaa war a saf-sap bu ma ñëwee taxaw dama fu ma taxaw daa war a neex waaw raasa xiis tak ku der loolu dafa war a fees looloy daa seex ñang dama ne ko barki Serigne Saliou Mbacké ku ne xam na ne seex ñang ren lay am quatre vingt dix ans nga ne waaw quatre vingt dix ans premier combat maam jambaat moo hmm. bëre deuxième combat moom Cheikh Niang premier combat manga hmm. moo bëre troisième combat moom Cheikh Niang premier combat ngay lum hmm. moo bëre deuxième combat allah bu arbitre soufflé fu mu taxaw naa ko dina fekk ko duma dinaa ko daan parce que Serigne Saliou ren lay gis ren lan war gis combat meles bu taxawee combat bi mooy gën a gaaw ci année bi parce que Serigne Saliou bu dawee dinaa ko capté mhm. wàq ba mu xóot sóor ko ci biir mhm. stade bi mhm. lii fii la ma réew mi xaar waaw parce que Cheikh taxuma may liggéey dafa bokk sama yoon rek te allah dinaa ko wax màggatum ko coro la boo ñëwee fii nga koy fekk waaw lu mu daw daw ñun ma sama yaa xañ na waaye incha ci kàttanu yàlla li ma bëgg a def Cheikh Niang nit mënuma koo teree bañ a def mais Cheikh Niang moom moo la koy teree def ndax Cheikh nee na ma wax ji boo ko ko waxee dina la wax lu lay gaañ baa mu wax la lu lay rey mooy maanaam nee na yow lenn loo xamante ne nii doxinu mbër la wala àllu mbër la wala yëfu mbër la ba nga war koo mën a daan wala nga war koo mën a sonal si jour boobu noonu man maay laam boo bëggee dégg-dégg bébé Elton mooy laam mm-hmm. Cheikh Niang mënoon naa toog fi mu toog nii parce que ñëpp fàtte woon nañ ko ah waaw ñëpp fàtte woon nañ ko daanaan la ma la dama ne bébé Elton mooy làmb ku ko jël da siiw Hmm. barke Serigne Touba fi mu ne Cheikh moo gën a siiw Fatiha. Hmm. bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbi an Cheikh Niang nga ko gën a siiw ndax lim jël Bébé Elton. barke Serigne Saliou. kon da man maay lamb man ku jël da ngay am tur. ñëpp xam la barke Serigne Saliou hmm. xam na instant yii nii may naa ko tur. bu ma daanee day fayaat. waa mais comme que moom nee na yow doo mbër waaw comme que nee na gisul li tax nga war koo mën a daan lan moo tax mu jël sama avance mais daa am man nit lu ma la bëgg a laaj mais ma loolu ban combat nga ma mën a indil ci say combat combat bi gën a neex gën a neex gën a métti say combat waaw sama digganteeg bébé lambaay bébé lambaay waaw mm-hmm. boobu boobu mooy sama premier combat mm-hmm. boobu laa mës a jël coup ci làmb mm-hmm. naa lu may saf ba yëg ko de bi nga jëlee coup bi noo de dama sama sama sama bët yi daa jooy sama baqatay jaar ni bi jaar nii bii jaar nii barki yonent bi xam nga ni ma maintien maîtriser ba keroog may daan dama daan ba pare soog a ñandu feena lii barki yonent bi waaw wala yoon wa tax combat boobu noonu ku yi wala jom ji jom mooy sama premier combat damaa bëgg boobu damaa wane jom ak fit ak fulla ak fayda dëgg la mër ba léegi jëlaatuma ko ci ku may bëree maa la jël maa la jox ku waaye dooma jox ku eh. parce que xam naa li muy saf eh. lu ma xaar nga may dóor eh. ak bu sublee maa sa kaw waaw ma bëre huit combat nag quatre victoire trois défaite benn machine yi waaw bii mooy neuvième combat incha allah ci kàttanu yàlla may wax pour des grands nan ma xaar mm-hmm. ci ñoom laa bok Mm-hmm. man maa mbër mi sut ci làmb ji macha mm-hmm. allah. Mm-hmm. quatre mètres cinquante la mesuré. ñëw mi sama loxo bi trois mètres quatre vingt quinze. ma judd namp neuf ans. neuf namp waxuma la sama longueur biir bi xóot neuf mètres ci suuf. bi yaatuwaay bi quatre mètres quarante. ma am sama objectif ak sama gëm-gëm. di lekk cere onze mille cinq cent. meew fukki dërëm suukar juróom. di lekk spaghetti seize mille cinq cent. pombiteer baxal onze mille pombiteer frite onze mille quatorze brochette euh, neuf euh, euh, neuf omelette huit nenu baxal mayonnaise quatre mille cinq cent ak ñaari butéelu ketchup yenn saa yi gannaaw lamit ni ma may ma man ko déedéet du may te kan moo jox xaalis boobu gannaaw lamit yenn saa yi moo may jox xaalis ba pare mu ne la may ma doo ko waaw mais munu loolu munu maa suuf kon loolu ñam la yëngal say saanu biir la tax ma ëpp mbëri doole bu dee hamburger yenn saa ma waaxu ba birees doole bu hamburger yi oyofee ma jël vingt eh waay bu bu diisee ma jël trente eh waay barki yonent lii moo tax ma ëpp mbëri doole dinaa fi dóor mbër mu dee ma waxte ba mu xóot neuf mètres profondeur suul tarel la fukki borom peel bi ñëw na dina fi suul ay mbër mais laataa ñuy àgg si suul bi balaa ngay dóor mbër mu dee waaw ban combat nga seetaan si sa adversaire mu bëri ko mu métti lool lool lool lool sama adversaire combat bii ñu war a bëre hmm. moom laay commentaire. Mm-hmm. waaw mën naa la koy commentaire tey. ñëwal arbitre soufflé na. Mm-hmm. bébé Elton ak Cheikh Niang ña ngay léewtoo. Mm-hmm. bébé Elton sëkkatal na ko. Cheikh Niang arrière na. waaw bébé Elton door na ko góor. góor شيخ نيان ريزيتيني بابي ايلدون اندي نو دورات دورات شيخ نيان دالون لا سي استاد بي ناني بابي ايلدون واخينا بام خوت وونا مود لو لا روا ديزير بو جولي كو نياري راكا بابي ايلدون سول نكو من كو تاريل فوكي بورام بيال بي نيونا دينا في سول اي مبر غادي كي جابرا كاتي كي كي تيغي تيغي في كوما dina ma fa fek te stade da nga fas yéene suul Cheikh Niang. lolu bité la xol ah bon parce que mo Lo mang koy sante bu baax di ko Dama damaa defar ñaari peel. di jël jël benn bi diko jox. di yobul ben bi pour man la. Hmm. ma ñëw fek mu defar trois pel trois pel yu ndaw. nima ñaari la la jox ben bi mom la yobale Esat ma ne ko Esat nari bëri peel. Hmm. ngir yalla bo dóoree si tabam dé ay way may ma ma ko. Hmm. li laay wara sul su ma dóolee Cheikh Niang ba mu dee. waaw gasal ma rek. waaw perkaal yooyu perkaal yi perkaal fu muy jóge. non loolu amul perkaal. suul rek rek direct. parce que ku ne xam na ne loolu mooy mooy saraxu saraxu estade bi. ñu dóor fi mbër ba mu dee ñu wàq ba mu xool suul ko estade mën a noppal waaw. mais mais mbër ba léegi ah. ba léegi fi mu toll nii yaa may gaañ mbër wax dëgg yàlla waxtaan bi neex na man ak yow ah. mais dafa am loo xamante ne nii bëgg naa ñu def ko ah. dama koy faral di def nag gars na nañu xaar mais nag mais nag avant ma jox la exclusivité bu bees sax exclusivité bu bees mm-hmm. waaw bu ma dóor euh, bu ma dóoree Cheikh Niang ba mu dee mm-hmm. ma wàq ba mu xóot suul ko uh-huh. ci bis bi vingt quatre novembre ci guddi gi laay sëy ngay nga laay sëy yow yaay sëy waaw yaa gis kër mi ah, bu may dem nag booy li may woyal li lay woyal Elton sëy na Elton sëy na Elton sëy na kër mi yaa gis Elton sëy na na Elton yaa gis booy dima aw na mhm. soo demee na nga góorgóorlu maanaam soo del dësel soo demee na muñ ba tee soo del dësel ma leen waaw incha allah dinaa ko def ndax miyaa man dama ko bëgg séri miyaa ñëw na Elton ñëw na Elton ñëw na la la la la sama way yëpp laa changé miyaa ñëw miyaa gise séri miyaa ñëw na dinaa la seyal ba nga bég gi jab la kati gi gën jagit jagit rël boobu mooy borom peel bi moom laa moo dutee mhm. def ko noonu waaw waaw mais mais dem sëy li ji Mia mbëggeel gi ëpp wala la mais Mia dama koo bëgg kese waaw moom léegi pare na boo ubbi woon sama xool bi mhm. jëmmam ju tedd jooju nga ci fekk mhm. boo ubbee xolu Mia Guissé bébé Elton nga ci fekk mu yor peel bu ndaw kon diggante boobu mun nañ jàpp ne ratax na officiel officiel damay sëy bu mu ko daanee ci guddi gi bu ma daanee Cheikh Niang ci guddi gi damay sëy Cheikh Niang nga problème Cheikh Niang préparé Cheikh Niang fi mu toll nii àdduna sas na la bébé Elton sas na la te nag da nga di ndaanaan da nga moom ñëpp moom la man ma ñuy bëggee waaw seen waa ñëpp moom man la ñuy bëggee mm-hmm. waaw moom seen waa ñëpp moom man la ñuy bëggee mm-hmm. di sant doomam ju ndaw Saliou mm-hmm. kooku bu xëyee suba xam lan la borom peel bi ñëw na dina fi raay ay mbër di ko jàpp raja kaje ge ge jage jage ren di ko wéyal papa doomu Saliou doo doomu Cheikh Niang bu liir lii lay wayantoo elto ñëw na daf maa bëgg su ma daanee su ma daanee sa papa ba pare dinaa ñëw seet si la ayca incha allah moom ñooy ànd bu ko yàlla dogalee loolu noonu mais ne Cheikh dama faral di def benn affaire dama faral di waxtaanee benn affaire daal di seeti mbër daal di daal di dem seeti mbër waxtaan ak moom daal di koy laaj en français mu tontu ci wolof wala mu daal di ma koy répété waatal ndax réew mi nag kenn moomu ko nasaraan tamit kenn moomu ah, xam na ne bébé dafa dégg français bi baax kon yaakaar naa ni sama waxtaan ak moom mbokk mi dina neex ku xam na ni ça mooy bonjour waaw waaw sawakara be sawa bien mooy bonjour national mhm. waaw mais léegi tamit qui peut je peux qui waaw qui peut mhm. mooy sawa na ngeen def mhm. beneen beneen bi si topp mooy dis-moi qui t'es je te dis

mooy si mooy Cheikh Niang warta mën a daan bébé Elton bébé Elton day dóor Cheikh Niang ba mu dee mu wàq ba mu xóot douze mètres profondeur mu suul tarintu fukki borom peel bi ñëw na dina fi suul ay mbër ngar gëj jàpp laa càkka cegg gëj gëj gis damay làkk français di ko firi léegi mbokk yi foofu laay daal di continuer ak moom bébé Elton gaañ na ma macha allah waxtaan bi neex na ndaanaan la samp yow la Elton kontaan naa la yàlla defal jàmm mais nag loolu ma bëgg tey ñu daal di tàggatoo en français waaw di tàggatoo tey ji en français comme que intellectuel nga jàng nga ba bàyyi la nga daal di tàggatoo en français waaw bonjour waa Sénégal mhm. vraiment vraiment remercier Sénégal yëpp mhm. waaw bu ñuul bu jaune bu orange. waaw waaw waaw qu'est-ce qui dit. Mm-hmm. Euh, euh, euh, bëgg naa ci yéen. Mm-hmm. waaw la la la la la la bébé Elton. Mm-hmm. la la kontaan naa kontaan naa. waaw waaw képp kuy nit. bébé Elton mi ngi lay wax bonjour bëgg naa ci yéen. in taaca paaca mi la ko tiis aji loolu mooy bëgg naa ñuy delloo mbég gi mbokk yi di ko sant grand ma sekk nag bu baax di sant grand Lamine Parkin di sant sama grand bi nu mu tudd Njaay maa ngi koy sant bu baax di di ko gërëm mm-hmm. di sant képp kuy bëggee grand Lamane maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaw barki Serigne Sall waaw di sant bookum borom hôtel Saly di sant Modou Lo PDG Mansour Ba maa ngi koy sant bu baax mm-hmm. di ko gërëm di sant père ba mm-hmm. sama papa ji lekkul dara bàyyi di sant assurance di sant Demba rek ko di sant waa Géejawaay ñëpp ku ci mel ni président Sidibé mm-hmm. moo ma nekkal Gunaas mm-hmm. le futur maire de Gunaas président Sidibé maa ngi koy sant bu baax di gërëm di leen wax di sant waa Géejawaay ñëpp di leen woo ci bis bi képp ku naan ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah maa ngi lay woo ci sama bis sama fans njaagoy képp ku naan alalululul alhamdulilah maa lay woo ci bis alhamdulilah rabbil alamin wasalaam mbokk yi mu ngi noonu loolu noonu moo doonoon actualité lamb Blindé Djiné ak Bébé Elton ci wàcc ay le vingt quatre novembre journée ma leen di ñaanal nag seen site bi yàlla na dem ba nekk télé ci doole Cheikh Ibra parce que yéen da ngeen ay jàmbaar ngeen barke yàlla yéen a ngi kër kër yi di jàppale mbëri barke Serigne Touba yenn saa yi ngeen am lu leen naqari ngeen muñ ko mm. yenn saa yi ngeen am lu leen neex waaw jàpp leen tawo lépp ay baax site bi yàlla na dem ba nekk tele ci doole Cheikh Ibrahima mm. mais man seen côté laa far bu mm-hmm. leen bëgg ma bëggu bu mm. leen bëggul ma jël sama ñaari peel yi dóor la ba nga dee wàq ba mu xóot douze mètres profondeur suul la li la réew mi bëgg kon yéen ñi ngeen xamante ne nii yéen yéen ay noonu Sénégal Média TV leen wax ñooñu noonu xel ñu daal di continuer di sant bu baax di gërëmaat bu baax ki nga xamante ne nii moom mooy grand Lamine ñu daal di koy fekk si mu dalal ñu dal bu am solo mu daal di ñuy dalal dal bu am solo dal bu jaar yoon grand Lamine jërëjëf kenn du yow waaye nag mbokk yi damay daal di dugg fi nga xamante ne nii moom mooy Casamance. tey fa la jëm mais mais fan yi fan yi damaa changé rafetaay ma mm-hmm. xam nga fan yi spectacle bi laa doon jël. Mm-hmm. waaw dem naa euh, fee euh, ñu ñu peese ma li ngay lekk ci pat daa bëri ma wàññi ko léegi wàññi naa léegi futi laay jël waaw bu ma xëyee damay jël douze mille cinq cent jënd ko futi ñànk tàng ak diwtiir ñu defal ma ko mélange moom laay tojee sama moon du ma ci may nit onze mille cinq cent futi laay lekk par jour dinaa fi dóor mbër mu dee ma wàq ba mu xóot suul ko parce que bébé doon léegi saa na lekk futi lay laal dinaa leen gànje barki yomal xiyaamu la ko ba Bébé Elton léegi yor na jikkoy pël Fuuta waaye mbokk yi damay daal di dellu ba Casamance di bëggee Boubacar Sarr le grand Sarr nit ku baax nit ku oyof nit kuy def te du wax Sarr kontaan naa ci yow jërëjëf yàlla na la yàlla jàppale tamit di bëggee tamit bàyyi daam daam bay marché bu bees day jàpp ci abima sama gaay la bëggul ma sonn di sant may sa sant yàlla boutique bu baax koo xamul nu lay def nam la defa tax mm-hmm. may sa sant yàlla boutique maa koy sant ba may jàppale ndongo Kolobane Ousmane Ñeex borom marché Dior mm. Ale Thiam maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant bokkum na di sant képp kuy bëggee bébé Elton borom peel bu ndaw maa lay sant di leen wax gars yi nan jàppale Fallou lii mooy réew mi ko jàppale ndaw la daa mën liggéeyam loolu barke Serigne Saliou man bébé Elton fu ma woo ma ñëw parce que macha allah dafa mat mu doon marqué empreinte am PDG yow mi moom malay wax nga jappale gaay yi ñom fallo équipe am parce que ñu ngi liggéey liggéey bu doy waat barke sëñ fall mais tay ay veeru 7 7 sept millions la laal dafa nekk veer dama ko ko ñaan ba son may ma ku bon a ngi ku siis a ngi ni ci veer PDG kon yaakaar naa dégg li nga xamante ni bébé Elton wax na ko man nag damaa njëkk jigéen saa su may tàggatoo rek nii lay demee bëgg naa ko nii laa ko bëggee loolu dafa baax ci man DG dégg nga li mu wax Mouhamed Talla Kane maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax dañoo jàpp ci sama combat la golden boy ñoo war a jàpp ci combat bi doomu Ndeye Fallou may sant Ndiaga Niang Ndiaga Niang doomu sëñ Modou Niang maa la maa maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm lan la ma war a defal uh-huh. seenu kurus peelu or ndeysaan seenu peelu or mhm. barki Serigne Touba képp kuy jaay or mhm. wala urus mhm. moom mooy sa papa maa ngi koy ñaanal waa réew mi nañ ko jàppale ku bëgg or bu baax wala urus bu baax ñëwal ci njagañaa diggéen essence tali mag la nekk di nit ku baax ku bëgg bébé Elton moo nekk sama ginnaaw moo tax nan naa fee ren nan naa fee dóor mu naaw kenn dootu ko gis lii moom maa la parce que Ndiaga Niang moo nekk sama ginnaaw. Mhm. waaw ren nag bébé Elton daa indaale melesam Ndiaga dégg li nga xamante ne ni moom la bébé Elton wax man nag or laa bëgg am micro. comme moom ni mu bëggee or bu am peel bi waaye nag damay daal di fi nga xamante mooy jaxaw siin dëkk buur siin ku mëndoo fen ju foofu laa boo woote balaa ñuy sama xarit bu ko nduur waaw waaw barki Serigne Touba jaxaw siin la dëkk borom li TV yaa meer yaa ay kay kooku mooy séeri bàjjen astafurlah ak a ngi na kenn du ku baax ku gore ku bëgg bébé Elton baax xam nga ni bu toon loolu ba ñuy ànd ba ñuy soog a dibiti euh, barke Serigne Touba day ñëw sama kër dama émission may dem seen kër ku baax ku bëgg doomu am parce que Serigne Saliou Mbacké lépp lu mu am ci média mhm. ko war a am séeréer bu tubaab ngi noonu kenn ak si lui se doomu nday muy se sant yàlla bu dik mhm. doomu nday bébé elton kon nag ku ko laal mu su meeku ah, waa UCG nag maa leen di sant di leen gërëm mhm. ñoom Elton rek la ñuy topp. Mm-hmm. waaw borom peel bu ndaw bi. bu mm-hmm. woo Modou Gueye. Mm-hmm. ci combat bi. woo. Pape Demba Biteye directeur Sénélec. maa lay woo ci combat bi ñëw leen jàppale ma. parce que combat bi mooy sama combat maa ngi ciy woo ñëpp. ñëpp la waaw. woote ba pare boole ko di liggéey. ay liggéey la woon am na lu ma fekk. bu at bi soufflé. nga xam ne konkorom. ak njiir waaw man maay Cheikh mm-hmm. ñaa mooy ndiir mm-hmm. dinaa la yëy ba nga kacco koo mm-hmm. ma jàpp la suul ci esaat Cheikh ñaa comme que yaa ndiir bul fàtte indaale xiir wala wëtiir mbaa diwtiir ngir combat ba gën a neex ndax non si bëgg naa loolu damaa bëgg combat bi neex mais loolu ñamalaat na ko Cheikh ñaa comme que yow yaay ndiir bul fàtte indaale xiir wëtiir ndiir wala diwtiir laa ma sëpp ko ci bam bam niiw suul ko ci euh, euh, esaat lii lii la bëgg kon Boucar dafay daal di nuyu ki nga xamante ne nii moom mooy euh, bànjen sa sori booy ak nuyu tamit magam bu góor ci am say ak góor Waly Seck ah, Mariasine may sa bige may sa bige maar lii musul am barki Serigne Saliou Mbacke ajim ajim naara nga def ndar ko ndar ko dool ma ma lambaay barki Serigne Saliou Mbacke yaa bëgg bébé Elton ba mu jeex fii laa ñëw sa seet nga jox ma deux cent euros yaa neex combat maa la ci woo maa ngi bëgg nga jëndal ma vingt bolo mhm. yow Waly Seck laay wax ci combat mhm. sama rakk Sidi Diop mhm. maa ngi lay woo ci combat bi Sidi Diop nit ku bax maa ngi lay ci combat bi nga jàpp jàpp ci combat bi maa ngi woo Tarba Mbaye Ndiogu Afia ñëpp maa ngi leen di woo ci combat barke Serigne Sarr di wax képp ku bëgg oto bu baax nag ñu mm-hmm. ñëw ci Grand Lamine mm-hmm. en face vertier bi mm-hmm. mooy jaay oto yu baax oto yu wóor te na dina ma may oto yàllaay kese lay waxee nee na dina ma may oto te oto bi ma war a yóbbu làmb moom moo ma koy jox kon kii cantal ngërëm ñeel na mbokk yi kon yéen tamit cantal ngërëm ñeel na leen soxna Maye Gueye mu sëñ Fallou foofu sa jaxaaw siin maa ngi lay ñaanal nga gudd fan di sàkkuwaat tamit ci yow ñaan aw buuru këram jaañ naar séeréer bu rafet naar bu rafet nala la jaamu sonal kenn du yow mbokk yi c'est à vous de juger na ma yeneen bëri xaar ci samay français ak samay question français merci beaucoup à vous jërë ngeen jëf